يا لطيف يا كريم يا جليل حامل جميعنا بلطفك الجميل di fas yéene yëkkati nag sunu kàddu ci turu tubaa ci kanam waaye nag di ko yëkkati ci turu Cheikh Mouhamadul Mourtada mi nga xam ni e, moo jiite commission bii nga xam ne day commission bu am solo ci biir tubaa ci kanam bokk ci bànqaas yi nga xam ni day banqaas yoo xam ne dafa làmboo njariñ lu baree bari ci biir Touba ci kanam ñu di ko tuddee commission sociale commission sociale nag bu ñu ko waxee ci biir Touba ci kanam eh, kenn ku ne xam na seenub taxawaay bu rafet ak seenub liggéey bu sell ci ay fànn yu wuute ci biir Touba ak li ko wër tey jii nag ñu defee defati jëf ju am solo joo xam ni dañ koo jëmee ci barab boo xam ni day barabu sëriñ Touba waaye di barabu murid yëpp muy kër sëriñ Touba gi nga xam ni dafa nekk fii ci Daarul Manaan ginnaaw bi sëñ mu Mourtala ak waa commission sociale bi yëpp ñëwee fii saytu kër gi ak barab bi muy kër goo xam ni kërug dalwaay la ci képp koo xam ni dangaa jóge ci lu jéggi Tuubaa ñëw fi moo xam kilifa diine la mbaa kilifa aadala la wala taalibe bu mel melokaanu taalibe war a mën a dal fii nga xam ni kër sëriñ Tuubaa la ñu gis na nag kër gi am na loo xam ne laaj na ko ci ay jumtuwaay yoo xam ni mënut ñàkk rawatina ci jamono jii nga xam ne moom lañu toll muy wàccaayu màggal commission sociale nag am programme bu yaatu boo xam ni tëral na ko ca biir programme booba nag bokk na ci lii nga xam ni moom lañ indi fii mooy jumtuwaay yoo xam ne mën nañ caa tudd lu mel ne ay sëjjaada yoo xam ni dañu koy bàyyi fii ci biir kër gi muy ay lim yu am solo yoo xam ne indi nañ ko fi ak lu ci mel ne ay daldi carax yi nga xam ne duñ ko man dañ koy soxlawoo ci biir kër gi lu mel ne ci salle yi nga xam ne moo fi nekk ak ay masque yoo xam ni comme dañoo nekk ci jamono joo xam ne dafa am mbas moo xam dafa tàbbi ci réew mi yooyu it bàyyi nañ ko xel ak ay euh, gel ak ay savon ak yooyu yëpp indaale nañ ko ngir waajale ko màggal gi ak gan ñi nga xam ni dañoo war a bàyyi ko ci biir réew mii di Sénégal wala ci bitim réew te war a ñëw fii ñu daal leen ci kër sëñ Touba yi. Touba ci kanam nag doon mel na ne buñ ñu doon wax ay partenaire dañ naan suñu première partenaire waaye du ñuy partenaire jàpp ne ñoom ñooy borom barab bi di suñuy kilifa. di suñuy jëwrin ñu topp ci seen ginaaw wala ñu nekk ci seen biir ànd ak ñoom bu ngeen gisee lii mu fi andi ci turu lii mu jiite muy commission sociale bi tamit fan yi ñu fi nekkoon doon def liggéey defaraat mbeddi Touba yi moom moo defal observation boppam gis na fii kat gis na loo xam ne manqué na bi ma ko waxee ma ne ko waaw ñu ngi ci de di ko kii mu ne ma kon fas nañ ci yéene ñu ni dugal ci sunu loxo naa ne ma dana ma daf ma laaj na ma noo ko bëggee rek ma wax ko xalaat jox nii mu ko defee tamit mën naa ne dafa kawe sama njortu ndax am na ci yoo xam ne sax bokkutoo ñun ci li ñu limaale woon te toppatoo na ko indil ñu ko ndax euh, daal lii rek indil nañu ci lu wet cent vingt euh, cent douze ps savon yi indi ci cent sa jaar yi ba indi ci cent vingt masque bokk ci woon indil nañu ci mille masque loolu it xam nga lu ko ëpp solo amut ndax ci jamono ji ñu toll te tumuraanke woon nañ ko ndax waa jumaa ji rek démb rek ñi ngi ma koy laaj ngir bëggoon ñi ñuy julli suñu man leen koy jox kon mel na leen li ma doon waxati dellu seeti na rek farati nañ ay ronkañ waaye saralati nañ tamit aw ñaq li ma ci bëgg a dugalaat rek mooy ñu xam ne euh, jëmmi ñaari téeméer yi nga xam ne Touba ci kanam ñi ngi koy def sasu képp ku ci bindatu di ko bokk loola mën naa ne farata ci murit bu bokk ci Touba ci kanam waaye social bi tamit commission la ci biir boo xam ne indépendant la ndax jëfam ji muy jëf ne du doon lu ñuy de loo xam ne dañ koy génne ci côté di ko jox waaye dafa yor yoonu boppam woo xam ni jaayante lay doon su amee yitte day seet ne lii mooy yitte ji mu ne nañ ko jaayante ñu bokk ci groupe yi ñu dugal ko ci groupe yi ak benn benn murid yi xam su ko defee ñoom ñu ne nangam lañ soxla ñu ku nekk joxe 1000 francs ñaar téeméer ba loola mat te duñ laal ci keesu kanam dara loolu dafa war a ndax ni ko sëñ biir waxee la bari na ñoo xam ne umpulaan umpule nañu ni muy doxee ndax dañoo jàpp na rek bu ñu soxlaa dañuy bind yóbbu ci jëmmi Touba ci kanam direction bi ñoom ñu jël dara jox leen ko ñu def ci seen social déedéet ndax numéro bii képp koo xam ne am nga loo bëgg a jël def ko ci sociale bi mooy 77 914 26 68 77 914 26 68 mooy numéro soci commission sociale bi nga xam ne lépp loo ci def na nga mën a wat ne àgg dana àgg fa mu war a àgg moo xam ci sëriñ daara lay doon moo xam ci kuréel lay doon moo xam ku am jalis lay doon moo xam ku ñu war a taxaw la wala kër sëñ tubaab gu ñu war a def yitte jëmee ca lay doon loolu it moo bëggoon naa ko ci dolli ñun liñ soxla mooy résultat te moom la ñuy gis ci Touba ci kanam nit nag buy def résultat kooku moom yàpp naa bu laajee war na ko jox ndax suñ suñ Seex Mbàkke mi ñuy wax ne moo indi daayira ci Touba mu daal wax ne nañu laaj nit ñi lu ñu am te di ko dugal fu ñu xam te loolu moom mel na ne ki ko firndeel te dëggal ko dëgg-dëgg mën nañoo wax ne Touba ci kanam la kon nag ñi ngi ñaan murit yëpp képp koo xam ni da ngay wuyoo turu Seexul Xaddim wala nga am dara ci cofeelam loo ci mën a jàpp nga jàppee ko ci te nga xam ne loo ci jàppee na nga xam ne dellu na ci Touba waaye dellu na ci waa Kër Sëñ Touba waaye dellu na ci néew ñu doole tamit ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. yaa latifu yaa karimu yaa jalil haamil jamiana bilurfikal jamil